monsieur le préfet, monsieur le maire des maires, le règne de monsieur le maire des maires, mon ami, tey yow Féolé, Féolé xewle fii ci bienvenue euh, maa AMS maire également délégation chinoise du pays nuyoo bienvenue bi ma bokk ko ak sama l'honorable Anna Poupay Gomis nga accueillir à l'usal le préfet la délégation à Nyokuni ñu lii li muy wane mooy Aliou Sall ak ñi mu àndal weesu nañu léegi fi ñuy wax ak jigéen dañu toll fi ñuy jëf mooy li président di wax le temps de l'action euh, fii ci Wakhinane Nimzatt monsieur le préfet

beneen bi mooy stade bi nga xam ni incha allahu rabbi damay bàyyi moom mu waxal ko boppam parce que stade bu bees la mënoon na dem également beneen commune mais mu tànn commune bi parce que loolu aussi ci compétence ville parce que ñun maire commune yi école primaire yi la ñu yore xam nañ ni muy def lycée Limamou lay xamnañu aussi bloc technique bi mu nekk di def moo tax ñuy wax ay euh, politique ñun ñun on est des élus looloo tax préfet toog fi mais dañu élire pour ñu liggéey dañu élire également jox ñu compétence territoriale maanaam ñu war a jàppale nguur gi wala nguur gi jox ñu pàcc yoo xam ne ñun ñoo ko war a liggéey yenn nañ suñu xaalis leneen nañ nguur gi jox ñu xaalis euh, su loolu weesoo xam naa aussi effort yi mu nekk di def ci tali yi ak ci électrification yi mais lépp benn kon nag Aliou fii soo fi ñëwee. Euh,

affecté wul amoo fa baat kenn du euh, léegi nag ñun liggéey moo ñu tax a jóg liggéey moo ñu tax a jóg lii ñuy tabax fii peut-être moom dina ko waxal boppam affaire école il faut ñu jóg si baax a baax a baax Sénégal pays libéral du tout ñu ngi jouer rôle pour rëy bu am le su dul woon sax peut-être taux de scolarisation bi du euh, toll fu mu toll mais nag problème de qualité amna. moi moo tax inspecteur jóg si monsieur le préfet ñu ngi ñaan planification ministère éducation ñu York une école primaire publique bien que tay leneen a un déficit au niveau de Wakina. aliou dina nous jox mais chiffre qui si on est presque 100 000 habitants L'école euh, école primaire dina 100 et quelques privés fekk public 20 30 40 président de la République, dans son programme, dafa la réhabilitation de l'école publique Comme loolu aussi il faut ñu taxaw ci beaucoup baax a aussi ëmb na daara yi na école de formation professionnelle Et te aussi le président de la République plaidoyer ak sunu ay plaidoyer ñu jeunes yi programme yi DER taxawal programme 3FPT deux euh, écoles entreprise etc. taxawal franchement yépp taxaw nañ ci président politique wu ko document préfecture la jaar nous dans la transparence un dalal ci un si c'est une commune nous, les amazones de Racine Tala, accueillir à l'insal. di ASC Molo, nous accueillir à qui nous toutes les femmes à à encore une fois ak sama tur ci sama tur wax aussi ci turu honorable Anna Popay Gomis à moins que mu nekk ci protocole bi man daal c'était là pour le mot de bienvenue je vous